jërë ngeen jëf mbokki internet te suñu actu tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seeni wàccuwaay li gën a fës ci xibaar yi niki tey janook ak lundi 7 octobre 2024 dañ koy doore li jëm nag ci wàllum transparence ak réduction des comptes bi nga xamante ni nag dañ nañoo gis ne nguurub Sénégal dañ na ci ubbi ab enquête jamono jilee jëm nag ci ñi nga xamante ni dañ nañoo njort ni rek ñoo lubal alalu askan wi ci régime bu Macky Sall ba tax nag eh, bu ñu sukkandiku ci porte parole bu FMI moom nag eh, jamono jile eh, dañ na yëkkati ay kàddu di rafetlu doxalin état bu Sénégal jëm nag ci mbir moomee ba tax nag jiitalu réew mu Sénégal Bassirou Diomaye Faye moom nag dañ na fésal akub contentement jëm nag ci waa FMI gannaaw nag réaction bi nga xamante ni ñoom ñi lee dañ nañ koy def jëmale ko ci réew mu Sénégal ba tey ci ay kàddoom moom njiitalu réew mu Sénégal Bassirou Diomaye Faye moom xamle ni mal gouvernance la ñu daal di nemmeeku ci ancien régime bu Macky Sall ñi nga xamante ni euh, moo fi nekkoon ba tax nag l'Obs Populi moom nag mu ngay daal xamle ni waa APR ñoom itamit bi le APR nag jamono jile rek dañoo daal di jàpp ni ay tuuma la ñu daal di teg seen ay ndodd ndax nag ñoo ngay xamle ni rek waa Cour des comptes ñoom rek ñoo mun a déggal yooyu yi nga xam ne rek gouvernement bi dañ na koy fésal jëm nag ci ancien gouvernement bi nga xamante ni moo a nekkoon leneen li ci mbirum xibaar bokk na ci nag li jëm ci élection législative yi nga xamante ni nag ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum novembre bi lee lañ koy amal bu ñu sukkandiku nag ci direction générale des élections ñoom nak dañ nañu xam li ñu kon ni ki tey ci lundi bi dinañu fësal liste provisoire yëpp nag yooyu les candidats yi nga xamante ni rek ñoo war a dem ci yooyu les élections que ci ay dossier ñu ngay xamle ni kon am na si ñoo xamante ni rek dinañ leen recalé seen ay mandataire dinañ leen informé bi nga xamante ni dinañ ko daal di fésal ni ki tey les candidats yi ni dañ nañ leen recalé ñoom nag dañ nañu ñu daal di saisir conseil constitutionnel soixante douze heures ngir nag ñu daal di yi nga xamante ni dañ nañ leen recalé ñeel élection législative yi nga xamante ni rek kon dañ nañ ko jàpp ci le 17 novembre bi ñu dégmal